ndax digënté balé gi numéro 2 ak Tapha Tine di eh, ko tass ku nekk uti uti foofari jee waaw di nga ko tass nga yaakar da la dama ci am lu ba ci xam dama ci am lu ba ci xam ndax numéro 2 ko tass ak ëmma seet lu tax digënté bi ndax sé mu ta dem la lu tass ko dama ci am uti nekk ñaari adversaire yu bees tàq tàq tàq. yi ñu naan <laughs> dama ci am lu ma ci lu ma leer nañ loolu dama ci am ci xam. bës lu ma leer nañ mais mënuma ci wax. bës ndax diggante Eumeu seen ak Balla Gaye numéro 2 duñ ko tas utal leen ñaari adversaire yoo xam ne nii ndax damaa gis ni seen diggante ñoom ñaar. da fi ibé ko ci ku ci nek am nga adversaire bo xam ni mën nga bari combat bo xam ne nii yaa combat royal lay doon waye digënté Eumeu Sène ak Balla numéro de combat tangal ki la buzz lamb mo soxla waxuma la Fadam de waxuma la buzz de lamb mo soxla ñu tax digënté Balla numéro de ak Eumeu Sène li tax lamb war ko tas Eumeu Sène dafa am benen adversaire bo xam ne combat mo gëna ñor digëntéem ak Balla Gaye numéro 2. Balla Gaye dafa am ay adversaires yoo xam ne nii combat moo gën a ñor diggante ak Eumeu Sène te combat Balla Gaye boobu bés bu ko Balla Gaye bëree combat boo xam ne nii Sénégal dañ ciy wax a wax a wax a wax bay bëgg a dee bu jëlee combat boobu Sénégal dañ ciy wax a wax a wax bay bëgg a muy combat yoo xam ne nii combat yi mën a dundalaat làmb la. waaw tey gis nañ grand contre petit mos nañ ko fañ yi neex na trop. diggante Balla Gaye 2 ak Siteu maa ngi koy dégg diggante Balla Gaye 2 ak Siteu maa ngi koy dégg diggante Balla Gaye 2 ak Siteu maa waaye diggante Eumeu Sène ak Tapha Tine itam xam naa ne moom nga bëgg a wax donc ñaari combat yooyu nga bëgg yow xam naa moo nekk sa xel mais xam nga yow tu as l'œil du consultant man j'ai l'œil itam du consultant les amateurs ils ont l'œil Euh, vraiment des amateurs. Mais Fadam, le promoteur, il a l'œil du promoteur. Le promoteur, il voit en tant que tel. Buzz waaw mais comme lay ben benn fa benn wax alaaji Fadam en terme de en terme financier mooy le promoteur buy tëgg làmb day def un business model un business plan def des calculs xool xalaat côté rentabilité financière côté xaalis mais aujourd'hui Balla Gaye de Eumeu Sène li muy génne ci xaalis amul benn làmb bu ko mën a génnee Sénégal jamono ju may waxee yow nii mais mënoo leen ko comprendre ndax Balla Gaye ci défaite bu mu jógee diggante moom Boy Niang moo tax mais bu Balla Gaye ñëwaatee rek nekk Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 Eumeu Sène li mu nar a jur amul benn làmb Sénégal bu ko mën a jur. te mm-hmm. lii ma lay wax de yaa ko gën a xam. Balla Gaye numéro 2 il faut mu jël combat boo xam ne da koy jaralaat dugalaat duggaat. non il xaru jiwaat waat na dal ci contre Modou Lo mu dal ko. Eumeu Sène boo ko joxee Tapha Tine. lépp pour lu ci àdduna. foog nga caser sa débat ci benn côté mooy sew sa question. da nga bëgg a leeral. Balla Gaye 2 est-ce que dafa soxla tey defaruwaat en tant que sportif pour bëri Eumeu Sène wala da ngay wax côté rentabilité ban côté ngay waxé bu féké da nga sox Balla Gaye dafa war am apéro wala entrée avant plat de résistance nga wax ma wala bu féké yow da nga ko tek ci cadre organisation ci cadre lamb Balla Gaye de Eumeu Sène faaw ñu tassaro Balla Gaye de Eumeu Sène bu ñu bëree 31 juillet bu ñu tassaro Balla Gaye de mëna na jëli Siteu bu ko neexee mu may chance site Eumeu Sène mën na jëli ci Tapha mais lu tax nga bëgg kase état bu Balla gi de Eumeu seen boobu noonu te ci côté rentabilité tey côté rentabilité xaalis combat boobu bokkut ak benn làmb si monde bi waaw. Beuz fi may waxee benn point rek la fi may waxee benn point yow li ngay wax yëpp coow la yow coow ngay <laughs> wax waaw coow la sant de mais coow loolu man gëw ma ni dinañ ci àgg bo parce que xam nga tamit man bëgg naa di wax di créer coow di wax lu neex ak yooyu mais bëgg naa itam bës bës gis bës nga gis ñaari mbër yoo xam ne bëri na ñaari yoon ak nga gis mbër moo xam ne nii bës bëri nañu yàkkam te mosuñoo bëri ñoom ñaar bës waaw bës yow nga gis tafatin mu préparé Eumeu Sène ak Eumeu Sène mu préparé tafatin balle gay numéro 2 rek ñetti adversaire wala ñaar da ngay wax Eumeu monsieur Tapha Tine sax mais sa xel neewul ci monsieur Sène sa xel bi ci Balla Gaye Siteu nga ko def laaj Fadam bayal xel bi ngay fooyee sa xel bi sa xel bi ci balle gay ci la nek te xam la moma jaaxal te ka amee man làmb ma def ay retard man buntu keur balle gay 2 laa njëkk a balle gay ci 2 non affaire bi dama jaaxal sax dama dem dama dem dama dem ma demee kër Balla ma dem benn benn copain benn copain bi nekk foofu noonu di fa fréquenté ndeysaan euh, nekk ci xel bàyyi mu bës ay waaye combat bi waaye taxaw bës leeralal ma ma ne ko man lu ma ci xam man xaw ma komba yi taxaw ma ne ko lan la ne ma Balla Gaye de Siteu mu ne ah <laughs> man loolu de dëgg yàlla yaa ma ko yëgal di yëguma ko yëguma ko loolu combat coow la daal combat coow la combat bu bëri coow combat bu mais mais mun na am mun na am en deux mille mais kam xam nga Eumeu Sène ak Balla Gaye itam gars ils ont tellement investi ci combat boobu te man bugguma di wax xam man ah man bugguma di wax ci bugguma di wax ci loo xamante ne Eh, aw ma ci information. waaw man damay bëgg. non xam naa ne man damay bëgg li may wax xanaa man mm-hmm. promoteur léeg-léeg dina ma woo wax ma combat ba pare ne ma combat bi ñu ngi koy dox mais après du ma ci communiquer parce que xam naa ne du sotti wala bu sottee du neex. non Balla Gaye Siteu taxul may wax de Balla Gaye Siteu moom taxul may wax pour leeral ah leneen la tax may wax mais ma maanaam du ma wax ci lu palpable damay bëgg tey Balla Gaye Siteu bu ma ci leeroon ni gars yi ñu ngi ci fay ci ay cachet ma am ci info yu leer dinaa ne ay combat bi waaj taxaw mais aw ma ci benn information donc te man damay bëgg toujours may waxe yow ci tempo Balla Gaye Eumeu Sène xam naa ci lu doy waar. xam naa ci loo xamante ni man gis naa ci pënd gis naa ci pënd pënd poussière te bu pënd bi wuree après carte gi day leer. bës gis nga li ngay wax nii barki yénti yàlla Mohamed lu ma nangu la ci bala Gaye de am waaye damaa bëgg dégg combat teel dee laa nam te ñoom ñaar ñëpp ci seen kanam am na combat yoo xam ne combat tey ngeen di dee la te ñoom ñaar ñooñu combat yooyu bis luñ ko jëlee dootuñu wax de ku dootuñu nangooti ku leen wax dama nga entraîné ji ndax danañ ci dégg communication boo xam ni nii mosuñ ko ci géej ko dégg ku leen ko wax te dinañ jëyanteeg adversaire yoo xam ne nii ñoom ñaar lépp luñ doon bañ ci làmb wala lépp luñ doon bañ a def dinañ ko def jël seen bopp. <laughs> léegi rek fi làmb toll fi làmb tollu mooy bës yaam a gën a xam lii ma lay wax bës ñu làmb soxlaatuñu ci ñu bari ñaari yoon a ñetti yoon làmb soxlaatuñu loolu ndax fi kese làmb yi jëm fi kese làmb jëm. yaa ko wax léegi fi kese làmb jëm chaque jour ci combat wu ñaari mbër yi mësta bëri ki la kase bi di gën a am doole ci ñaari mbër yi bëri ba pare gis nga revanche su làmb li ci Sénégal di xaar revanche su làmb li ci Sénégal di xaar benn revanche moo nekk ci xelu amateur yi te xamaguñu kañ lay am muy diggante Boy Niang numéro 2 ak Sa Thiès mi dira ko Balla ki numéro 2 bu ko mooyee amateur yi soxlaatuñu benn làmb joxoon ne la benn ravance lañu soxla benn soxla Balla gi de eum sen nañ len tax sey bi mënta dem la bogo soxla tuñu ko nañ jël eum sen jaarale ko nii ndax Eumeu Sène ñaari combat mu ngi ci kanamam bu ko nexé mën naa bëri bu ko nexé mën naa bëri mag mo xone nako gi de bu ko nexé mën naa bëri bu ko nexé amna na beneen bu nek ci wet ga bës nak fofu nak dafa jot nga tax ci sa nga wax ne bugguma xam information foofu ci yow mais li ñuy xaar ci yow mooy ndax foofu la lamb soxla man loolu lamb da ma waxee ñu ne mu ngay jaayate ay kodam moo waxee ne mu ngay marketing mais Balla Gaye Eumeu ma leeral signé wu ma ci benn contrat signé wu ci benn contrat Gaston Production kon tey su ma ci waxee nga xam sama xam laa ci waxee ak sama xalaatu bopp ma la mën a xamal mooy tey bu kenn kenn oyofal combat boobu combat boobu coow lu mu am gisaguñ ko waaye nee naa la bu pënd bi wuree ci la lépp di leer combat boobu dafa am coow bu koy ñëkk a démarré ne gaa ngi nii leer na dafa am coow bu koy ñëkk a démarré alaaji coow lu rëy alaaji fana mënuma piège non mais boobu no non non. lan lan ñëw rek dafa am coow lu ñëkk demaare ci kombaa boobu. bu coow li fay. ban coow la bu coow li fayee. dafa am leneen luy feeñ. waaw bu loolu. feeñee bu loolu feeñee. supporter Balla Gaye day boo xoolee ñoom ñëpp fu mu toll ñu commencé ne tek boo seetloo ñoom ñëpp ne tekk. keroog bu Boy Niang daanee Balla Gaye dañu bëri amatuñu yenn yaakaar ci Sa Thiès diggante mag Reug Reug chinois boo ci jël interview day commencé lox du ñeme wax ci combat bi boo waxee rek mu ne la yàlla baax na xoolal bu sa Ketchup daa tiitoon ba tiit fi dara ndawul ñoom ñëpp a tiit ba bi ñëpp a koo ci laaj Sa Thiès mu ne la yàlla baax na yàlla baax na combat te li dal Sa moo dal fu mu toll Balla Gaye mooy ay supporteram koo ci gis rek amul yaakaar digganteem ak Eumeu Sène mais Balla dafa am tempo bu muy yóbbuwaat affaire bi dafa am benn dafa am fenn fu niveau bu mu ko war yóbbu bés bu fa niveau ba bu yëggee bu yëggee rek ci niveau bi mooy des fois gis affaire buy yéeg jóge ci rouge di yéeg jóge ci rouge orange ñëw ci vert bu affaire ba veeree rek combat ba day tàkk supporter dañ ci nekkaat combat ba closé mais bés ma te loolu daloon na Balla Gaye Modou Lo ñëpp newoon nañ Balla Gaye jeexal na xool leen forme bu mu indi contre Gris Bordeaux xool leen lii xool leen laa ah combat bi neexul mais xoola Balla Gaye de Modou Lo xam nga ni biitir ci làmb bu làmb dee làmb ba léegi lu Balla Gaye de Modou def ci biitir yi benn làmb musu ko def ak li Balla Gaye Gris Bordeaux def ci biitir yi hmm? li balle gay Modou Lo génn ci xaalis ben lamb mosu ko génn ci xaalis te pourtant ak balle gay mi ni moo bëri Gris Bordeaux bërki dem moo jaay ñu jaay nit bi balle gay man mu taxaw contre balle gay Boy Niang contre Boy Niang bi ñaata place la arène nationale 20000 place doli mati balle gay Balla Gaye Lo fu ñu ko bëri mhm. hmm. Balla Gaye Lo ñaata place la stade amitié. soixante mille places. Euh, dolli ma. trois fois la capacité. la la Balla Gaye oh. mu génnee ci billetterie benn làmb génnewu ko. mais xam nga ne kon Balla Gaye warta nopp ci xam nga ñun ñii ñëpp fadam dañuy wax rek ñun ñii dañuy wax muy neex ak yu mel noonu yëpp

sur le pay-per-view, sur les vidéos sur YouTube, sur euh, les sponsors, en tant que tel pour les grands combats. guide est le meilleur. Moudlo, il a un truc exceptionnel. Moudlo, c'est sur la longue période. Moudlo, c'est sur une longue durée. Mais Moudlo, Moudlo, Moudlo, C'est ci côté contrat de sponsor Moudlo, par rapport à son image, par rapport à ni gérer il peut tenir pendant 10 ans, 15 ans, mais Balaguer il fait feu et flamme, mais sur une courte période. C'est ça le problème. Il y a une mauvaise gestion par rapport à beaucoup d'aspects. Mais si Balaguer comme le Ahmadou Mada waxone ben jour, Bal bu sportif, sportif rek du ci entraînement kessé, mais ci beaucoup de choses là. Mais Balle, tay, Bal BG2 non, non. Bal warna am marque BG2 bu yag. Balla xoolal blouson bu rafet blouson keroog euh, euh outa jazz bi xaw ma bu rafet blouson keroog ci combat saa ci bind ci BG2 ci ginnaaw Balla waroon na développer sa marque waroon na développer des produits waroon na développer beaucoup de choses hmm. mais mom xam nga euh, géré naa ko paré mom finalement il a juste le don xam nga dafa am don dal dafa am don dafa am don te Balla xam naa sax Balla Gaye gëmu ni xam na xamul lu ko yalla may non non man xam nga man ba fi nattee communication Balla Gaye numéro 2. Hmm. xam nga nattee. fi ma demee ba xam ne kii am na lu ko yàlla may dëgg dëgg dëgg. Hmm. boo koy wax ci làmb dañuy yaakaar danga ko faral. mais Beuz coupe du monde ni mu toll ci àdduna bi. Beuz xoolal niveau combat. Hmm. coupe du monde bi ni mu toll niveau bi. ni tolloon Sénégal. ak promotion combat Balla Gaye numéro 2. bii nga xam ne nii moom lañ mhm. génn fan la tolloo si si. combat bi niveau bi dafa ba. te loolu mhm. communication mbër mi la basé woon. kon mbër yi am na lu ñu war a mën a jàng ji te communication kon bës loolu. Mhm. loo war a feeñal. si si maa ngi ci xalaat def ci ay tuto. maa ci xalaat def ci ay tuto ay tuto yoo xamante ay vidéo expliquer on a statistiques statistiques, ay chiffres wane chiffres, ci on est point de am Modou est point fort on est yan région la fooree ak lu waral loolu ak Modou lan mm. positif aspect positif est ci Lambo, Boy Niang nga ñëw jël ko Reug Reug on est jël ko Sa etc. Bombardier Ama on ba ci on nga a est euh, ban niveau la nekk quoi donc la est point fort la travailler pas juste dans la lutte hein, mais dans de façon de façon générale mais nag mais nag bi ma la xam ba léegi bi ma la xamee ba léegi tey ngay mës daw coow buzz balaa ñoo dagg live bi may ngay tàggoo xam naa yaa ngi yoonu tàggoo buzz ak deux nga yaakaar ne combat boobu amul yeneen combat yu ko gën a ñor ñoom ñaar comme coow li nga xamante ne yaa ngi ko doon wax léegi yaa ko wax yooyu yaa ne Balla Gaye Boy Niang ci période coupe du monde la Balla Gaye Boy ah. am benn niveau bu ma àgg te ci période coupe du hmm. monde la ndax fa communication ba ca période coupe du monde la coupe du monde bi novembre ba décembre la mais fin décembre di premier janvier Balla Gaye booy Niang bëri teewul ko baab toll niveau balaa di fa est-ce que xam ne Balla moo nar a ëpp coow Balla Gaye Boy Niang pour loolu am lan moo tax pour lenn moo bare buzz buzz car kan? pour pour pour Balla Gaye bi la kan? am il faut dama ne la kàddu gi leer loolu ba def Fadam man xam li may wax <laughs> mënu wax ci live mais carte gi leer na ba pare carte gu coow li war a jaar sax carte gi ah, leer na ba pare fu buzz. carte ah, xam nga nag làmb du biir day xëy wësin waaye yow nag ah. ca wësin ba nga toll mais man maa nga ca biir ba. mun naa ne lépp mun na cee ne. waaye leen daal la ko xamal. te mu leer. ba leer ba leer. waaw mooy man gis. naa stratégie bi tegal nañ ma wan nañ ma document stratégique bi. document document stratégique de création de coow pour le combat. mbaa na plan. waxumala plan A plan A bi la yow fu mu toll nii xam la yow instant waa mbuur yi ñoo jaxase sa bopp bi fu mu toll ñoo forcé sa calcul. yow sa Balla Gaye ëmm sa ñàkk am bi yëpp yaa ngi wéer ci waa waa waa yi xonk nopp yi. bëri. waaw d'accord loolu bañu ko ci lamb de man bu ma bu làmb. dañ koy xëy di ko coow. waaw loolu itam mën naa mais man man daal li ma gëm. mooy Balla Gaye Eumeu Sène bu amulee 31 juillet mun naa am octobre wala novembre. Hmm. mais man gëm-gëm bi ma am. gëm-gëm bi ma am. mooy ball Gaye de Eumeu Sène ñoom ñooy ñëkk a balaa Balla Gaye di bëri keneen wala Eumeu seen di bëri keneen. am na loo xamante ne nag xeex mun na tax wala jaxasoo jaxasoo mun na tax tey ji gars yi suucee ci calendrier bi. mais li ma gëm mooy bu dee prochain combat Balla Gaye man gëm naa ni Eumeu Sène la bu dee prochain combat Eumeu Sène gëm naa ni Balla la xam nga xam nga dégg nga ma fi may waxee te gëm naa ni ñoom ñaar duñu génn deux mille vingt naa ni ñoom ñaar duñu génn deux mille ci kàttanu yàlla jaxasoo nag document stratégique de création de coow bi nag gis naa ko gis naa document bi mooy plan bu gars yi war a jaar pour te gëm naa ni Balla Gaye Eumeu Sène mooy ëpp. coow Balla Gaye Boy Niang gëm naa ko. Tapha Tine nag lu bi ma ko ci géej gi noonu nee na daa teel a dem Màkka de mënoon naa bàyyi ba jëflante <laughs> bu ko gaañ waay. barki yëpp yàlla woon na lu ma Tapha Tine daal nee na daa teel a dem ah li muy teel aji mënoon naa bàyyi ba jëflante ba pare. mais alaaji Fadam kontaan naa ci yow sa live dafa ne xam nga ma lay wax rek ma ne la Fadam yaay làmb waaw bu ma ko fu ma ko teg nag waaw mais dafa dafa garaaw quoi parce que Fadam il est une heure quarante du matin Sénégal Fadam ñëpp ñu lay seetaan nekkuñu Sénégal ñu ngi ci Europe foofu doon deux heures quarante moo fa jot xaw ma trois heures quarante mais ñoom ñu ngi lay seetaan di la bàyyi xel donc Fadam Eh, waa trois cent soixante nangam personne di la seetaan te boo tëjee sa live bi hmm. yóbbu ko YouTube ay hmm. milliers de personnes seetaan la kon Fadam mu toll nii yaay làmb mu neex mu naqar yaay làmb waaye nag kon bu dee bu dee yaay làmb moom xool sa kanam rek tout droit te bàyyi li ci ginnaaw bàyyi li ci gauche bàyyi li ci droite yow xoolal ci kanam rek te avancé ndax yaay làmb hmm. yaa boot yaa boot coow yaa boot xat ku boot xaj nag bukki bëw la noonu lañ koy waxee waaw wala ku boot ku boot mm-hmm. bukki mm-hmm. xaj mbow la noonu lañ koy voilà ku boot ku boot bukki xaj mbow la fu mu toll kon boog fadam tuuti laa rek te xam ni fu mu toll nii yaay làmb parce que yaa ngi ñuy bégal ñun live yi dugguñ ci nii nii nii ut ci cent franc live yi dugguñ ci pour dara amul lenn intérêt lu dul passion bi quoi mooy dañ lay seetaan di bég di happy mooy nga ñuy wéttali ba deux heures du matin mënoon a dem yëpp def yeneen am na liggéey bu bëri fu mu toll li ma am ci liggéey kenn xamul lu mu toll mais maa ngi ko teg nële di la bàyyi xel di la déglu kon Fadam doxalal yàlla yàlla dafa cat suturaal la sàmm la di wax sama père Malang ba ca États-Unis ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal suñu mhm. borom may ko wér ak gudd fan yàlla na ko yàlla wéral bu baax moom père maala maa ngi koy béggee bu baax di ziar mbokki amateur yi ñu doon seetaan ci live bi yëpp di ñaanal mbër yu amul combat yëpp yàlla nañu am komba muy Gris 2 muy guy gi mu Yékini Junior Moussa Ndoye champion yooyu yëpp yàlla ñu am combat bu ñu amulee combat ba ca Modou Anta bu ñu amulee combat nag nañ leen claf coow li jeex <laughs> salaamaaleykum wa rahmatullah